eh ana sama néeg wan ko néegam waa léegi nag. léegi du ñu dem. fan fi jëm kii mu ngi soog a ñëw ak saagam bii nii da nga xam ne mooy intention dañuy dem baa ko kër bu defee dara defee dara suñu ginnaaw nag.

lii de sama famille mënuñu laa supporter. Seydou. boo baawul sa ay xarit ay seen waa kër ñuy wax nga ñëw di wax ñees sëy ñu yow yaa sëy te boo bëggee am barke ci mbar boo baawul ñii ngay dégg yow baax na loolu may sawar. demal jubal nga dem. kon doo ñëw ñu ànd. dugal nga dem bàyyi ma ci toog yaa ma fekk ci man woo ma la yaa fi ñëw demal waaw. na dégg naa maa petit déjeuner au gis nga li ma daan dégg si néegu sëy si lu baax yëpp bi ma ñëwee fii laa koy doog jaar lu mu lu mu dajut mais saa yu xëyee mi ngi daan xool lu neex suñu papa mu ciy dox si la gënoon a mënoon tarbiyu suñu papa gis nga lii dama ko tàmmee ci sama góor gu baax ga taxoon musuma xiif musuma mar tayit musuma rafle nga sama alal ji ñëpp di wax ak nii ma mel moom moo ma ko def ma màgg di sëy dama war a def noonu di tarbuy sama jëkkër di dox ci ay waawam ndax dëgg la li nga gis jigéen di sëy nit lu mu am def ci jëkkëram di sonn ci jëkkëram ñu bari sax dinañ dem ba jàpp ne ku góor ki mooy sonn ci jabaram fekk ne déedéet ku jege ci jigéen ji moo doon dee pour jëkkëram lu mu am jox jëkkëram toog day dem sax ba fàtte bëgg-bëggam bëgg lu neex ci këram soo gisee bis bi ma la gisee ma daw di la topp di la wër ngir jàpp la dangeen a am trait moo tax bi ma la gisee ma defe ni sama góor ku baax ka moo ñëwaat moo waral tey sëy bi gis nga bébé góor amul lu dul bakkanam te loolu tax na ma gumba tëx lu dégguma dara gisuma dara ndax yow jëkkëram xëy wor ko fàtte fu mu jaaroon ak moom yépp waaye gis nga jàmm bu nangoo dogal xam ne lépp lu ko dal yàllaa ko namoon ci moom rek du sonn te règle boo gis nag am na exception de te man sama bos ci exception yi la bokk bébé yaa ma féete kaw yaa ma féete suuf dara waruma lu dul jaamu la ndax yaay sama sang <laughs> I'm not a ಮಾನಸಿಕ Baby, I love you. I love you too. <laughs> papa nit la. yow sa papa ngay waxal nga naan la sa papa nit la doo surveiller sa langage. sama xarit yi ñoo ma woo ma foog ne lu nekk lañ may wax ñu war ma kaa ndekete sama papa mooy kaar bi waaw. ci nan. xale bu jigéen boobu noonu yaa ngi koy fàttali xale bu jigéen boobu ñu foogoon takk na ko takk na ko. xanaa sañul loolu day. Ah, sama doom sañ-sañ nga. Amari Ngoné ni ma Mbaye waraay mi ci Banjul Malick Fall mi dee Jobaas yuuti mi ci mbaadaan biram yér mi ñu dew sa réer dangoyaan mi ci tëng géej dañ ca ndee la njaay jaafun ba mooy sa maam yow yaa dëkk mbar jaag daali yow la Youssou Ndour di way de biram siga paar bi te ñàkk ko juma ko jaay séréer yi ci am gaar boroom ñaari ñimbal yi ci mbiri ñimbal mi ci mbiri bokk la ñimbal mi ci am gaar sama doom sañ-sañ nga laaw la ca yow boo soloo mu rafet tubaar fakkal la macha allah law la kooku yow sax buñ la ko jox doo ko takk lan laa koy doyee kon seen ni pexe man na ka ah, ba xamal lan moo metti sam papa ak ni mu meloon waa ak waa daaray kocc ak film yi mu fi def yëpp actuel mu nekk président arko bu Kër Massar di takk sama morom xale bu ndaw muy daagu fii du ko nangu kan moo koy nangu man pour ñom gis nañ pa bi il est devenu quelqu'un euh tekina ñu ne dañuy ñëw pour rasatu ko man may maay lijjanti loolu ndax man du ma lo xamné sama yaay moko ko liggéey depuis bobu mu def ci bakaram def ci alalam def ci leppam ben caga ñëw nan da koy nangu. sama yaay dafa liggéey yow nen tenken même pas man loolu dina ko lijjanti ñom dinañ xamni ñun kenn boté bootewuñu soleil. dinañ ko lijjanti. waaye dey ñewante naa la lool de ñewanteel dangay bëreek mbër mu naqaree bëreel yaa loolu ban mbër la hmm. mooy néegu sëy bi nga dugg mbër moomu boo dawee rek mu gañe waaye boo toogee te muñ dinga daan mbër mi lu mu yàgg yàgg waaye yaay mbër moomu noonu su ma ko daanee lan mooy pay bi say doom lañ lay loolu mooy doon jabar gu barkeel goo xam ne ku seen say doom naw la nga toog ci sa doom kaasi mbër ngay bëree na sa xel da ndax man fi nga teg sa tànk bi ma gis ko fa laa teg sama bos te gisuma luy tax ma teggi ko li ma lay wax mooy déema gën a sànni ñaan kese incha allahu rabbi góorgóor bu baax na dollee mu faale sa jëkkër te fonk say njëkkeeg say borom du ma jóg ci di la te incha allahu rabbi mbër moomu wallahi boo góorgóorloo di ko daal caméra moom la ñu mën a utiliser ci biir gàlle bi pour am li ñu soxla. da nga ma wóolu wala da nga jàpp ne li nga ma jox mënuma ko. si wóolu naa la bu baax c'est juste dama lay fàttali pour nga xam li ñuy xaar yombul. saag bi la moo yoonam. ay tenue ñoo nekk ci biir. Damo boke gade dikoswa kipet galet pou ganyen sen konfyan. Bin nan seme senaryo, def seme mizan sen, roul biyo yako jye, te wou loun alet. raw su ma doon jeex tey xartu xalifa yi sama xel ci yow rek lay daj kon waroo woon a ànd ak xalifa dem di takki jabar te man yëguma ko li ma gën a mucc ci takk gi sax mooy bu fekkoon xale ngeen dem takk mais ngeen dem fekk mag bu dem bu dikk ngeen takk ko ku ko mat maam te doon ma loolu yëguloo ko dëgg la yaay booy dañ la koy nangul quoi c'est normal nga am réaction bi waaye mën naa laa waatal ne la yëguma tinuma hmm? fekkewuma hmm. du neex a gëm nag ndax xalifa sama xarit la hmm. te xarit bu defee dara dañ naan ñun ñaar ñoo ànd doxandoo loolu ma mais maa xalifa benn xale bu jigéen lañu ànd doxaanandoo ko ba fi ñu toll nii muy Bambi mais mair bii ñuy wax yëguma tinuma musuma ko sax teg hmm te li gëna jaaxal ci mbir bi moy suma koy wax waxu réaction bi khalifa di am dafa melni, du mo li def tayu ko man lolu moma jaaxal ci mbir yi. sa wax dafa melni da nga ni tayu ko ok kon tayu ko. dama bëgg rek nga may ma yaay lu ndaw lu may jeex fi ak fan dinaa la wax ndax moom la wala dañ ko koo def loo. waaw waaye mere woon naa la trop nag. non doo mere yaay sama naa la yëpp nag yaa ko jiite. non doo mere yaay sama ma woon naa la de. <laughs> naka ngay nekkee benn doom bu jigéen rek ci sama papa ak sama yaay nekk benn rakk bu jigéen ci man mënun nga bàyyi ñu defal la xew bu mag bu àdduna bépp di coow lan moo tax takku jàkka ah pour lan. grand bu ma mere grand damaa dugg ci lu bëri coow te xam nga ko te xam nga ne xew boo koy def foog ñi uyu si la danga am koo xamante ne dafa ñëw pour tàkkalikook yow am koo xamante ne day ñëw pour fay si bor bi am keneen koo xamante ne xam nga lu koy indi pour lu mu yóbbu te grand bu fàtte ne xew di weesu nañ ñaan yàlla dund rek buñ dundee dinañ xew ba baax na ko fexe nga ba ma rek waaw ah, bon dama la jox sa cadeau parce damay dem dama yàqante dafa am benn way bu ma la bëgg a wayal wayal waaw baax na ci jaaja jaalo Fatou ci jaaja jaalo Fatou fay fay Fatou Fatou dilema oh Fatou yo yow yow mu ni fàtte woo yaa ngi fàttaliku lii suñu ko doon seetaan saal bi ni ma doon bañ a tonte Ibra loolu moo tax ma waayal la waay bi mais nag loolu xam nga lan lay jàngale foofu noonu parfois nga gis benn xale bu ndaw nekk ci koñ di day sob day bëri affaire mais nag bul ko jéppi bul ko wax dara parce que àdduna mun naa dox ba mu doon sa soxna voilà preuve comme yow <laughs> parce que bi nga koy bañ kolo tey mi ngi nekk sa jëkkër hmm? te man dama jàpp ne bañoo ko woon waaw parce que boo ko bañoon lii du am tey na nga man damaa sonn bëgg suñu kaa ñu photo balaa ngaa def moo gën nga nekk na nga mën man dama yaakaar ne xoolal benn photo rek laay photo bi parce que nag jamono ji da ngaa see xam naa loolu moo tax nga bañ a photo man kaa photo benn Ah. Cheikh Fall. tànk ba léegi maa ngi lay ci kër gi mais gisuma la. waaw dama génnoon kay ma demoon daara ja pour seet sama xarit. ah c'est bien loolu baax na xam nga nit ki fi nga nekk ba nekkatoo fa dafa jaar de temps en temps nga dem seeti leen loolu moom vraiment am na solo. waaw ah, Paa Maodo ma bëggoon nga may ma xaalis ma pour ma dem jënd mbaaj pour jox ko sama xarit ndax seddaay bi dañ koy soxla. ok ah Cheikh vraiment nag kontaan naa ci yow xam nga nit yàgg naa nekk ci barab jóge fa rek fàtte leen ma yow defoo loolu du ma nag ci may la xaalis nga dem jëndi mais dama lay dugal sama oto ñu ànd dem marché nga tànn mbàj yoo bëgg ñu jënd ko yóbbu leen d'accord. waaw ma laaj. lu tax école bu tijjee lu ñu leen annoncé wala ñu leen di jàppale loolu duñ ko jàppale daara yi te daara bu ñu leen tuddee rek foog sëriñ bi def dara wala taalibe yi def dara ñu leen doog a tudd. te li nga wax nii Sénégal gépp moom la ñuy jooy nitu daara yëpp loolu la ñuy jooy waaye nag bu la dara metti ndax baaxoo nañ. bala ñoo tudd daara rek comme ni nga ko waxee il faut mu lu fa xew ñu ñaawlu ko ni sëriñ ba la wala taalibe ba la waaye nag nañ bàyyi xel ni alxuraan kàddu yàlla la te kàddu yàlla nag soxlawul ku ko médiatiser lenn rek kay mooma metti mooy lan moo tax ni ñuy jàppale école française bi duñ ko jàppale daara yi loolu rek moo ñu metti mais na gis nga li nga def nii man loolu laa bëgg nit da ngay sàkku xam-xam foo toll del gëstu parce que li nga wax nii moom Sénégal bàyyiwuñ ci xel mais lu am solo la. na lool ci yow waaye wàccu naa ak yow papa wàccu nga ak man kay naa ba ma juree ci farata jàngal ma sama diine xamal ma ki ma doon ba li doon xaar ay at tey ma jot ci kon wàccu ak man Binta waaye nag wàccoo ak man de. ci nag papa. Binta pour nga wàcce ak man faw nga dem sa kër ci kër sëy bu rafet te it bis boo ko defee di nga wàccoo ak man ndax loolu rek lay xaar ci yow. jërëjëf papa te dégg la bu baax a baax. soxna si man ne damaa xiif ma xëyee suba ba léegi lekkuma dara soo amoon foofu weccet doo ma may rek ndax ma am lu ma lekk suba ba tey nga ne lekkoo naanoo yow ban problème nga am soxna si man sama problème dafa metti ba mënuma kaa expliquer xam nga nu ñuy def yegg si ci biir jógal soxna si jaru ko man soo mayee wéccet rek ma am lu ma lekk baax ñu dugg ci moo ëpp sutura ñëw jël sa